fàttaliwaat fàttali bu gàtt bu jëm ci wàlli eh, murum koor ku ne xam na ne sunu gan gi mu ngi ñuy tàggu jaar na yoonu dellu eh, mbir nag ce li gën a am solo ci mbir moo gis rek mooy mujjantal ga arab yi dañuy wax ne al umur fi xawatimiha mbir yi ma ngi gën a amee solo cafa muy jeexe jamono ji nga xam ne nag weer waa ngi tàggu di dem fii nag lay fi nekk fii nag bokk na ci li ñuy sàkku ci yow bokk na ci li nga xamante ni yonent yàlla sallallahu alayhi wasallam ah, moo ngi koy sàkku moo ngi koy farataal ci julit yépp ñu bàyyi ko xel mooy ñu génnee seen murum koor mbokk na nga xam ne murum koor lu am am solo la am lu ñuy wax zakatul di murum koor ñi naan ko sadaqatul fitr ba tey muy sarax si koor rek mooy murum koor moom de nanga xam ne sarax la boo xamante ni bu xam la am na itam nes koy génne waaye am na itam ñun ko war a jox ci charte yoo xamante ni yooyu lañ ko jagleel loolu moo tax ñu ñëw tey ngir fàttali la am solo goo xamante ni muru koor am na ko solo bu baax a baax a baax mbokk na nga xam ne muru koor lu am am solo la am na ñu wax zakatul fitr di naan ko sadaqatul fitr ba tey muy sarax rek mooy murum moom de na xam ne sarax la boo xamante ni bu ñu xam la itam nes koy génne waaye am na itam ñun ko war a jox ci charte yoo xamante ni yooyu lañ ko jagleel loolu moo tax ñu ñëw tey ngir fàttali la am solo goo xamante ni muuru koor am na ko solo bu baax a baax a baax mbokk na nga xam ne julli li muy am am solo xam nga boo ci defee njuumte danga koy si jóotal moo xam sujjóot xabli la wala sujjóot baadi la sujjóot boobu ngay sujjóot ngir defar julli gi nga xam ne dafa yàqu noonu sujjóot bi di defaree julli gi na nga bàyyi sa xel bu baax a baax ne muru boo ko génnee njuumte yi ak rëcc-rëcc yi nga xam ne moo la doon dal ci biir weeru koor wi noonu la ko suñu subhaanahu wa taala di jégle bu fekkante ne génnee nga sa muru moo tax ñu waxoon ne e, tuxratun lissaimi min allaxwi wa rafas waaye wa tuamatun lil masakin kon murum koor lu war la lu tax mu war mooy day laabal ki doon woor ci rëcc-rëcc yi nga xamante ni doon na ko dal ci bëccëg weeru koor doon nga juum xool loo xam ne sax waroo ko woon a xool waaye yaa ngi doon juum sax di wax loo xam ne waroo ko wax wala sax yaa ngi doon juum di laal loo xam ne sa loxo war a ci woon tege wala sax yaa ngi juum di dox jëm ci bërëb boo xamante ni sax ah, waroo foon dugg yi njuumte yëpp nga xamante ni daje na ci yow ci jamonoy koor ah, te muy ay bàkkaar yu sew sewaan yu ndaw ndawaan yooyu de li la koy jéggal mooy nga génne muuru koor ñaareel ba mooy am na solo torop moom mu koor lu tax mooy taamatun lil kiin am na koo xam ne korim jagagul am na koo xam ne amagul añ am na koo xam ne ay xaleem amaguñ dàll ay xaleem amaguñu yére moo ci boppam amagul lu mu sol kon daraam jagagul ci kori gi te daa war a kori comme ñëpp daa war a feete kom ñëpp dafa war a yëg ni tey la korite kooku dañ ko war a jox muuru koor ngir léppam mën a jàkk kon ñaari aspect yi moo ci daje mooy bu njëkk bi moo di ne nga yow di nga laabal sa bopp cëre cëre ci waaye tam di dimbali sa mbokku jullit mi nga xam ne da nga loo xam jotul ginnaawam moo mën a kori kom ñëpp kore mën a neex comme ñëpp. léegi nag murum koor kañ lay war ci yow mi nga xam ne yaa ko war kañ lay war jàppal ne bu bi sawe ñu ne suba la korite jàppal ne waxtu ñu wara a génnee mburum koor dugg na bu jant bi sowee ñu ne suba la korite masal ñu ne weer wi feeñ na jant bi sona ñu ne weer wi feeñ na ñu ne kon mburu koor tàmbali na foofii la commencé ba keroog ngay waaj dem jullu ji ci jullekaay ba am na sax ñu wax ne dagan na tamit sax ñu génne ko bala ñoo wari ci benn fan dagan na itam ñu génne ko bala ñoo wari ci ñaari fan kon deux jours avant dagan na ñaari fan avant ñi korite dagan na nga génn sa mbuur koor comme benn fan itam dagan na nga génne ko balaa ñuy balaa ñuy wari niki noonu itam bisub kori gi bala ngaa julli ji foofu itam manes na ko fa génne li am sol daal mooy na ko génnee bala ngaa dem julli ji ca jullekaay ba jaamu yàlla goo xamante ni mbokk jaamu yàlla ak alal lañ koy defee jaamu yàlla goo xamante ni alal moo koy def mooy da jël sa alal génne ko jeex ko ñu ko a jox farata la nag farata la kenn ku ko man ku ne farata la ci yow moo tax ñu ne même bu fekkee ne da nga amul dara sax loolu benn dépense rek nga am ci bés bi nala la wér ne yow war na la da nga ko war a génne ki mu warul daal ki mu ki mu nga xamante ne warul daal waru ko daal mooy ki amul dara dépense bi sax amagu ko waaye ki nga xamante ne sax am na dépense bés bu korité kooku génne muru koor dafa tegu ci loosam da ko war sart yi mooy sart yi tax mu war la mooy na nga nekk ab jullit d'abord na nga nekk ab bu ko defee nga génne ko sa bopp génneel ko sa njaboot génneel ko sa bopp génneel ko sa njaboot mooy képp koo xam ne ab dundam yow la war muy soxna yi ak doom yi ak ñi nga xam ne yaa leen yor di leen dundal ñi ñëpp da ngay war a génneel ñi nga xamante li nga xamante ni moom mooy muuram koor su ko defee naka naka lay toll mbokk maa ngi lay wax ne murum koor day dañu wax ne saaun la saa nag moom la ñuy wax arbaatu am daat arbaatu am daat nag min muddihi sallallahu alayhi wa sallam mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa bu tàllee ñaari loxoom tibb ci dugub la wala tàndarma la wala ceeb la wala moo xam lu mu doon mu def ko ñeenti yoon loolu mooy arbaatu am daat loolu day moom mooy ni ñu koy génne kon yow mi koy génne da ngay nekk diggu bi nit bu nekk nit koo xamante ni say loxo ëpp ni loxo war a toll waaye itam bul nekk nit koo xamante ni say loxo tuuti na ba ëpp na ni loxoy ba àggul sax ca ci ni loxo nit war a toll kon daal da ngay nekk digg bi nit rek loxo yi may ëppul ba jaaxal nit ñi waaye itam tuutiwul ba jaaxal ñëpp ndax des fois ñu gis loolu léegi léegi nga gis koo xam ne ay loxoom dana toll noo xamante ni ëpp na loxoy nit nag loxo nit ñi yem des fois tamit gis koo xam ne ay loxoom day tuuti tuuti ñaay boo xamante ni dafay àgg ci eh, wax dëgg yàlla day du tollu ni loxoy nit ñi war a toll ci tuuti kon kon day nekk rek lu digg doomu day nekk rek lu digg doomu rëyul ba jaaxal ñépp waaye itam tuutul ba jaaxal ñépp danga nga nekk digg bi nit kooku daal moo koy natt ci ay loxoom loolu nag buñ ko xoolee bu ñu xoolee ñeenti arbaatu am yi mooy tolloog ñaari kilo ñaari kilo ak liibar am na ko wax am na sax ñu ne ñaari kilo ak genn wàll am na ñu ne sax ñaari kilo ak liibar ak genn wàll liibar kon ñetti wax yi daje na ci ñii nee nañ ñaari kilo ak genn wàll liibar ñii ne ñaari kilo ak liibar ñii ne ñaari kilo ak liibar ak genn wàll liibar kon da ngay jël bi ci digg bi rek mu ñaari kilo ak liibar su dee dangay génnee daal mburum koor te li ñu ko war a génnee ku xam na ne mooy fii ci senegal la ëpp lu nit ñi dundee ci lañ koy génnee kone xam na ne Sénégal moom kenn dundeewu fi yàpp kenn dundeewu fi tàndarma kenn dundeewu fi dugub lu ëpp ko ci la dundee rek ceeb rek la kon ceeb boobu moom lañuy moom lañuy génnee li nga xamante moom mooy mburum koor ceeb boobu nag. mooma ngay moom ngay natt ci e, bob bu nekk nga génneel ko ñaari kilo ak libar bopp bu nekk nga ko ñaari kilo ak libar su ko defee nga xool yow tàmbale ko sa bopp say soxna say doom ñoom ñëpp kenn ku nekk nga nattal ko loolu le muy ñaari kilo ak libar boo xoolee lépp nga boole ko e, xam ne nangami kilo la nga génnee ko nga jox ko miskin mi nga xamante ni moo ko yittewoo wala faqir bi nga xam ne moo ko yittewoo wala sax ñi yàlla doon ne ñoom ñoo lekk sada indama sadaqaatu lil fuqaraay wal masakin ba ay ca jeex kon ñooñu ñëpp kooku ci jox rek sab sarax sa muram koor oo àgg na ñooñu nga xam ne yaa leen ko a génneel nag ku ci volontaire ne moom mën naa génneel boppam dalay wàcc masalan sa soxna bu dee rek liggéey ne la ah sëñ bi man kat euh, euh, wàccal naa rek mën koor dinaa ko mën a génn sa bopp su boobaa moom soxna si da koy génnal boppam bu ko defee yow mu wàcc la même sa doom itam doom jula ci jula la ci wax ne la papa bàyyil ma génneel sa bopp mu koor su boobaa itam da lay wàcc bu ko defee moom mu génneel boppam loolu yëpp nag doom ju am jom dina ko wax baayam soxna su baax itam soxna su baax dina ko wax borom këram ngir wàññ ngir ngir wàññil ko charge yi nga xamante ni moo tegu ci kawam mango kon buñ ko génnee ñooñu lañ ko jox wax naa ko euh, ñooñu kook ci jox ñu ma waxoon léegi muy ñi yeyoo lekk asaka rek ñoom mën nañ ko lekk muy alfuqara wal masakin ñooñu nag tamit nga xamante ni ñoom lañ koy jox ne ñu góorgóorlu bu buñ leen ko joxee eh, nañ ko jëfandikoo ci bés bi ba bés bo buñ taxalal sa taalal seen loxo di laaj ndax illa bi bi tax ñu koy joxe moom murum koor yéen teel a dafa wax ne nañ leen ko jox. ba nga xamante bés boobu benn miskin wala benn faqiir du ñëw di tàllal loxam ci julleekaay bi di laaj ñu ma lu ma ta bàyyi xel ugnuhum an zulli su'al fi dalika al yawm yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne nangeen leen jox ba bés bi jàkk ba nga xamante ni ñoom bés boobu duñ ñëw di laaj moo tax bu asaka yi muram koor yi buñ ko génnee joxe ko niñ ko a joxe benn miskin nag waratul ñëw ci jullekaay bi tàllal loxoom ci bés boobu bés boobu moom yalwaan daa warta am ci yoon bu fekkante ne joxe nañu muru koor nañ ko war a joxe yalwaan warta am ci bés boobu ku yalwaan ko war ngaa bàyyee beneen bés waaye bésu korite yalwaan warta am parce que loolu mooy illa yi ñu joxe muri koor yi buñ ko joxee nañ ko war a joxee rek kenn warta yalwaan yi waaye ñu jox la ko ba noppi nag nga defar service ba mu baax waññeekuwaat taxawat jullekaay ba tàllaat loxo di yalwaan loolu nag la ñuy tere loolu gënut kon ki nga xamante ni loxoom jotul ginnaawam ba nit ñi jox ko ay mburum koor ba mu defar bésam ba bés bi baax waa da yàlla wartu demaat ci julekaay bi nag tàllal loxoom e di yalwaan loolu day loolu loolu su ko defee e yow mi nga xam ne yaa ko génne muy génne nga dugub wala génne nga li nga xam ne mooy ceeb léegi ndax ceeb boobule mën nga koo soppi xaalis wala dagganul ñu koy soppi xaalis maanaam mën nañ ko génnee def ko xaalis wala mënuñ ko def xaalis foofu tamit wute la ci am euh, al mazahibul arbaa dañoo wuute ci ndax mënees na koo def xaalis wala rek ceeb bi rek lañu war a mën génne ku mel ni imam malik mazhab imam malik ak ku mel ni mazhab imam yi ak imam Ahmad ibn Hanbal ñoom ñett ñi dey ñoom jàpp nañ ne kenn war koo génne xaalis dañ ko war a génnee rek dugub li nga doon dundee rek nga war a génne su dee yow da nga doon dundee tàndarma daal nattal tàndarma génne ko su dee da nga dundee dugub nattal dugub nga génnee ko bu fekkante ni itam da nga doon dundee ceeb nag nga natt ceeb nga génne ko te boo doon dundee ceeb itam yow mi natt ceeb nanga bàyyi xel bu baax a baax ceeb bi nga xam ne moom nga war a génne xam nga di di dundee ceeb boo xamante ni cinq cent franc lay jar kilo cinq cent wala mu jar kilo euh, quatre cent moom nga dundee ci biir weeru koor yi nga dem ba war a génnee muru koor dem xooli ceeb boo xamante ni trois cent lay jar ceeb bu woyof bay tànn bu bari ay nu num tuddati nga natt ko di ko joxe loolu tamit gënul loolu tamit baaxul li nga xam ne moo gën mooy ceeb bi nga doon dundee ci biir weeru koor bu dee ceeb bi jar 600 francs la wala bi jar 400 la wala bi jar 500 la na nga natt ceeb boobu nga joxe ko mu koor loolu itam la ñu bëgg foofu noonu kon ñoom ñoom ñooyu ñoo wax rek ne ñoom imam malik ak shafii ak ahmad ibn hanbal ñoo ne kenn waru koo génnee lu dul rek li nga doon dundee ci weeru koor yi waaye daganul ñoo koy génnee eh, xaalis daganul ñu koy soppi daal def xaalis waaye ku ak ku mel ni alxasanul basri ak ku mel ni omar ibn abdul aziz ak ku mel ni sufyaan sóori ñoom ñëpp ñoom ñi gis nañu ne mas na ko soppi tamit xaalis mas na ko génnee xaalis xam nga li tax xam nga fi ne daggan nañu génne ko xaalis li tax mooy fi ne ceeb boo ne doon tey quarante kilo ceeb dem jox ko benn miskin ñu ne suba la korité xam nga ceeb moom te moom li muy teewoo moom miskin mi wala moom faqir bi li mu yittoo mooy lan mooy li mu yittoo mooy goneem am dal goneem sol yére mu dal di togg ay ginaaram defar bés ba mu baax ceeb mënut loolu kon lan lay def dafay obligé jël quarante kilo ceeb yooyu dem boutique ba jaay ji ko comme da koy jaay ji rek nag xaalis la koy defaat kooku boo ko defalee xaalis tamit wax dëgg yàlla day gën a baax ci moom rek day gën a baax ci moom moo tax kon soppi ko def ko xaalis tamit dara nekku ci waaw boo joxe ceeb baax na boo amee xaalis nga koy joxe ko baax na su dee xaalis tamit moom mën ngaa calculer bopp bu nekk rek euh, ñaari téeméer nga kilo ceeb bu dee jar quatre cent franc ñaari kilo yi huit cent franc la libre ceeb deux cent franc boo ko boolee muy mille kon jàppal ne bopp bu nekk génnee ko mille bu dee da nga génnee xaalis bi bu dee da génnee ceeb bi tamit nga génne ñaari kilo ceeb ak libre ci bopp bu nekk noonu rek lay lay demee ma nga kon daggan na daal ñu génnee ko xaalis comme daggan itam nga génnee ko li nga xamante ni moom mooy li nga doon dundee muy ceeb bi nga xamante moom nga doon lekk ci jamono yi euh, weeri weeru koor wi ma ngoog kon ma ngoog yow mi nga xam ne daal yaay génne mburu koor yow mi nga xam ne yaay mu kàllaf mi ci kër gi danga ko génneel sa bopp waaye itam danga ko génneel na képp koo xamante ni ab dundam yow war te muy ab jullit nag ab dundam yow war bu noppi te mu nekk ab jullit sartu wuñ ci itam ki nga koy génneel mu am xel mën naa nekk ku xamante ni sax dafa am feebar xel ci kër gi waaye nag da nga génneel ko xel mu nekku ci dara mën nga am nga doom joo xamante ni yàlla da ko nattoo mu am wér di xel ba tey bokk na ci ñi nga xamante ni war a génneel asaka am nga doom joo xamante ni matagul day door sax juddu kooku da koy génneel saatoon ci mu nekk baaleex mu nekk ku majeur déedéet saatoon ci itam mu am alal mën naa nekk koo xamante ni am na alal waaye yow la war su la wàccee nag wàcc na la waaye su la wàccewul su la su la ko wàccewul yow la war kon daal ñetti mbir yi nañ ci bàyyi xel bu baax a baax ki am xel ki nga xamante ni dafa am wér di xel bokk ci sa njaboot faaw nga nanga ko da nga koy génnewaaleel ki nga xamante ni masooragul tamit donte day juddu da nga ko génnewaaleel ki nga xamante ni sax moom mag la am na am na alal eh, bu la ko waxul yow bu la wàccewul yaa koy génne li nga xamante ni mooy muram mooy muram koor kon ma loolu tamit yow mi génne na ko bàyyi xel bu baax a baax a baax eh, eh, jaamu yàlla goo xamee nag war na góor war na jigéen waaw war na war na jigéen war na jullit bu góor war na bu bu jigéen war na ndaw war na war na mag ma kon ñu bàyyi ko xel bu baax a baax xam ne ñoo ngi ci période am fii mu nekk nii nii nii ku mu neex léegi fi may wax yow nii ci audio yi waxtu wi audio yi nga jot audio yi mën nga daal di sa mur sa sa sa sa sa sa ku mu neex itam dem ba guddi bu fekkee weeru feeñ na nga continuer ba keroog nga julli ji fekkee weer wi feeñul tamit suba mën ngaa continuer di génne sa sa sa sa muur koor na waxoon naa daga na nga génne ko benn fan avant ñuy korité wala sax ñaari fan avant ñi ñuy korité mbokku Sar Family lii moom laa ñëwoon tey ne naa leen ko fàttali ndax fadakir fa ina dikra tanfaul muminin xëy na sax fàttiwu leen ko waaye fàttali dafa baax loolu rek moo taxal may naa ñëw fàttali muuri koor yi ku mu doon ci ñun rek bàyyi ko xel ndax lu ama am solo la ndax kat mbokk koor gi li muy baax baax baax li koy defar nag moom koor mi ci la bokk waxoon naa la ko ci tàmbali maa ba kon nanga ko bàyyi xel baax a baax dafa yéene koo génne te boo ko génne itam nga jox ko ñu ngi ko war a jox loolu mooy li ci gën a am solo muuru koor nag bokkut ak suukaru koor nit ñi nag dañuy sonn ci ay aada te bàyyi loo xam ne farata lay doon ci ñoom wala sunna lay doon ci ñoom xam nga li ñu tuddee sukkaru koor te sunu mbokk jigéen di ci sonn lool di ci joxe xaalis su baree baree bare di ci joxe ay tissu di ci joxe lu nekk mu rëy lool te loola ah, ah, teraanga la joo xamante ni dañ koy seq rek mooy aada te bokk te ndigalul yonent yàlla moom sallallahu alayhi lii nag moom day ndigal yonent bi sallallahu alayhi day ndigal borom bi subhanahu wa taala ndigal yàlla ndigal yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy ndigal yàlla kon nanga ko bàyyi lu baax a baax waaye di sonn ci loo xam ne aadala bàyyi loo xam ne farata la ci yow rawatina li ñu tuddee murum koor nga xamante ni day defar sa koor day dimbali sa mbokkum jullit mbokk li yëpp na sàgg ne kon maa ngi dénk sa bopp di leen dénk kenn ku nekk ñun ñu bàyyi ko xel bu baax a baax te fas yéene cee taxaw te def ko ni nga xamante ni noonu la ko sharia diglee yal nañu yàlla may dégg topp wasalaamu aleykum wa barakaatu.